mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum waa kër Tambidou TV man la Khalifa Ababacar Ndiaye ibnu Alaaji Ibrahima Ndiaye ibnu Tafsi Serigne Bata Ndiaye Senghère euh, président comité d'organisation ziara ak gàmmo ak porte parole waa kër gi fa tabarakallahu ma doon sët ci Serigne Bata euh, liggéey bi nga xam ne den ko tàmbalee tey muy ziyaara bu ñuy defal sunu maam at bu jot yàlla dogal ñu dënk ko teg ko suma loxo ma di ko doxal. waaw alhamdulilah eh, si Ama Tidiane Tambidou mu xaddam eh, kooku kenn la ci tarixa cheikh kenn la ci xadara malikiya waaye kenn la aussi ci ëttu kër gi nga xam ne baayam di Boubacar Tambidou eh, fii la soqeekoo. sunu maam tas yi Serigne Baata Ndiaye moom moo doonoon taalibeem moo doonoon bras am mu tarbiya ko mu jàngal ko mu yar ko balaa moo génn àdduna mi ne ko Boubacar mi ne ko mi ne ko demal nga dem toog fu la neex waaye fooy toog fu ne na nga fa gas te tabax fa daara boo ko defee àdduna yëpp danañ la wuy si te loolu tey doomam di Cheikh Tidiane Tambidou Cheikh Ahmed Tidiane moom rek doy na firnde ni baayam Boubacar Tambidou sunu taalibe sunu maam la. Cheikh Tambidou ñun ay sëriñam lañu moom taalibe la ci kër gi tey li mu fi def ak apport bu mu fi andi ak jàppandal bi nga xam ne jàppandal na ko ci bés bi lu ko war la dafa delloo buum ca mbooy mbooy ga fa tabaarakallaa bar barki Dembo Ndiaye bii rek la fi jógee mu ñoo defal boppam visite de terrain man mii di porte parole bi man maa ko fi recevoir defal ko visite officielle jaar ak moom fu ne woon ko lépp loo xamante ne mooy réalisation fii. ndax def na 2 ans yo xamne amna ben projet bu ñu tuddee Senguer Jëf Jël Senguer Jëf Jël mu euh projet bo xamne dafa taxaw ci 4 phases yépp nak dañ ko financer ci 30 millions nga xamne setu goor gi di sunu ma mi teud fi ñom ñoy yor financement bobu du état du ben ONG setti nga xamne ci Amadou Tidiane Tambidou bi def na ci lu reuy def na ci lu am solo ñaaral bi tamit bëss bi ñu dugg ni Il na ci ay engagement yu am solo ndax biñu visiter, visiter ba paré daf ma eh, sama visite Il y, xol terrain bi la waye bimu ko na il faut ma ci suma loxo mu wo képp fa si mom la aju ñu dem Tay, ku gis délégation bu mu ñëwé ci khadara bi fa tabarakallah da la nit ko ku bëgg ku bëgg a tarixa la te ku bëgg a tarixa si Ahmad Tidiane Chérif la fa tabaarakallaahu lépp luy rôlam ci kër gi sama loxo bii la jaar ren participation rek bu mu fi defee visite officielle yëkkati na un million joxe ko ne leen na ngeen ko dolli ci bés bi kon na kooku lu mu def noonu lu ko war la lu mu def baayam Boubacar Tambidou fu mu tegoon tànkam foofu la ko teg te teggiwu ko kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla lii nga xam ne naal na ko lii nga xam ne sumb na ko lii nga xam ne bëgg na ko ci Casamance ci wàllu diine bi ci wàllu tarixa bi ci wàllu daara yan na ko ko yàlla mottali si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ci turu famille bi si turu comité d'organisation bi bëgg nañu lool kontaan nañu loolu ci moom waaye tamit di kontaan ci yéen yi nga xam ne fa tabarakallahu yéen a yor kër Tambidou TV di leen ñaanal yàlla yan na dem ba doon ay télévision يالا دفال لن كن كوتشي نخي ولا جام اك السلام عليكم ورحمه الله